dalle ak jàmm mbokk internet yi mannequin sénégalaise bi di wuyoo ci turu Khoudia Diop dañu ko joxoñ baaraamu tuuma nee ñu dafa sàcc ab perruque buy jar 450 euros Khoudia Diop ab mannequin sénégalaise la boo xamante ne nii daanaka jamono ji ni dafa siiw lool ci ay bés yu mujj yi daanaka mi ngi def buzz ci internet bi te li ko waral mooy melokaanu taaru yaramam bu ñuul jigéen bu ñuul kuku waaye yañ lool ñu mën ko méngale ak li wuykat ba daan wax ñuulaayu kaaba melokaanu yaramam bu ñuul mu ngi jëmal ak fësal taaru jigéen bu ñuul moom nag ma nga tàmbalee feeñ siiw ak fës ci bokk gu mu bokkoon ci ab campagne bu ñuy woowee Colored Girl Project ab projet photo boo xamante ni li ko tax a jóg mooy def ay nataal yuy fësal bépp xeet wala melokaanu yaram bu jigéen am ci àdduna bi bokkoon na ci ña ca gënoon fës ci lu gaaw ñu ràññee ko lool teewaayam ci réseaux sociaux yi maanaam Instagram tax na ñu mena nin ngir melal melokaanu ñuulaay bu yaramam am tey ji Khoudia Diop am na sutura bu yaatu te doy ci wàllu liggéeyam donte jaar-jaaram nekkul woon dundu bànneex kese amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ne moom moo ko waxal boppam jëm ci melokaanam ak nañu ko daan xoolee ca l'école ba mu daan jàngee Khoudia Diop di wax ne dund naa lu métti lool ca l'école ba ma doon jànge ñu bari dañ ma daan kekkantoo ak di ma reetaan ngir sama melokaan yaram bu ñuul lu ëpp ci ñoom jàppoon ma mujj fu yooyu kàddu waaye teewul ne lu ma métti la woon tey ji Khoudia Diop am lu toll ci ñaar fukki at ak ñett am bayre loolu ba ñu bari di ko waxtaane waaye tey ji li ñu koy waxal du loo xamante ne nit ñi yaakaaroon nañ ko ci moom ndax dañu ko jiiñ ab sàcc waaw moom top modèle bi mu ngi ci digg coowo bu métti ab coiffeuse ak jaaykatu perruque bu mag te siiw ñu koy woowee Lil Vanilla coiffure moo ko joxoñe baaraamu tuuma ci ab sàcc ndax ne kilee di Khoudia Diop dafa commandé ab perruque ba bañ lank ne du ko fay xuloo ba ci diggante Lil Vanilla coiffure ak Khoudia Diop ma nga tàmbale ca Instagram ba ngir ab perruque buy jar 450 euros daanaka mën na nekk lii di Khoudia Diop boole nañ ko fépp ci réseaux sociaux yi ngir jëf ju ni mel waaye ba mu toll nii dafa bañ ne du fay boobule perruque waaye ànd ak loolu itam boole na ca tontu bataaxal yi nga xamante ne moom la ko Lil Vanilla coiffure bindal ca Instagram ba boole ko ak ay kàddu yu saf-sap te ñàkk teggin daanaka doxalinam bu ni mel bari ay fans fan yu mu bett su wottuwulee dina ñàkk lu bari ci ay sponsoram mbaa ñu dakkal ay contrat yu ñu xaati ma ci digganteem ak ay styliste ak i marque yére yu mag Thione Seck nee na siiw du jàmmi borom jërë ngeen jëf